waaw maa ngi dama woote woon pour communes yi xam ne daf ñoo dañoo wërtu Mbàkke mu nekk le neuf commune ñu teewoon fi tey am lamp yoo xam ne dama leen ko doon jox taw de dix dix waaw dix yoo xam ne dama leen jox ay lamp lamp commune bi ne ma jox la vingt lamp yoo xam ne lamp trois piles lay nekk yu ànd ak consolam joxe bi ma ko joxe nag dama ko joxe ngir ngir ak euh, ngir coloré def ki tamit ngir sumay moroomu adjoint au maire yi fañ nekk ñu bañ leen faa xeeb ndax suñ ne ku joxe lamp ñu ne adjoint au maire la mënoon a ko na jaarale ci maire yi parce que maire yi ñooy suñu kilifa te xeebuñu leen benn yoon xeexuñu leen aussi xeexuñu ñu aussi ndax boo gagné sa commune yow yaay seet kala neex nga ne kii laa dugal mu nekk sama adjoint au maire kon mënuñoo fay mënuñoo fay maire yi aussi waaye nag Serigne Mountakha Serigne Touba xaar nu sa la wax ne dëkk bii dafa bëgg ñëpp di jàppalante te ginnaaw da koo bëgg nag ah ñoo tax ñun tamit ñu fas yéene koo gën a jàppale ci dëkkam bi dëkkam bi it soo déggee ñu koy ñu ne dañ ko ci jàppale mooy Serigne Touba daf ñoo jox xéewal goo xam ne dañ ca war a jàppale mboolem ko xam ne ni da ngaa njaboot Serigne Touba daf laa njaboote rat nag suufa Maam Cheikh Anta si nga xam ne dañ fee nekk tey daf fii bañ ñu fi Maam Cheikh ant di dalal di eh, di Serigne Amidou Mbacke booba fii néegam ñax la woon tey boo xoolee tey li fi nekk tey yëpp tey ci ñaan ak Maam Cheikh Anta la ndax boobu sëñ ndax ci ay ma sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Amidou Mbacke la woon sëñ Thierno Lambaye na ma mën ngaa dëkk ak sëriñ Amidou Mbacke dëkk googee nag tey feeñ na sama digganteeg sëriñ Touba tey Daaru Salaam gépp amu seen ak pay ndax naam seen suufas maam laa nekk xéwal gi seen suufas maam la ma fekkee kon loolu tax maa ngi leen sant bu baax leen gërëm bu baax ndax boo xoolee fi ma dëkk tey ci Touba Daaru Salaam lamp yi bari def naa ko fi ndox mu bari def naa ko fi te loolu dama ko wax publiquement ñëpp di ko dégg fii ma tax di wax ak yéen rek lu tolloog deux kilomètres yoo xam ne ni tiwa la jënd naa ko ñu ngi ko war a ci biir dëkk bi ndax dafa am forage boo xam ne forage bu bees la bu jógee ci Bobidine jëm si fii ci Touba Daaru Salaam forage boobu fi mu ne moo am ndox forage teen maam Cheikh bi amatul ndox bi ma laajee askan wi ñu ne kat ñun problème ndox lañ am ma dama leen jëndal ay tiwo ak li ci war a dem yëpp ma jox leen ko ndax ngeen mën koo def ci askan wi ndox mën a amaat normal comme nañ ko doon amee ñu mën di naan bu baax baax dëkk bi tam aussi tamit wàllu làmp yi dama ca taxawaat bu baax a baax a baax ndax bëgg dëkk bi gën a leer ndax saay-saay si mën a mën a mën a moytu dëkk bi eh, di sant bu baax sëñ Aliou mii yàggu ñoo xamanteeg moom waaye macha allah gis nañ nit ku baax la nit ku bëgg doomu aadama la nit ku gëm social la kon sëñ Aliou yal na la yàlla gën a jàppale vraiment gën a dëgëral taxawaay bi ba lii nga xamante ne moom mooy sa mébét suñu borom jàppale ñun ñëpp mu yeggale fa yeggale la fa lii ñun ñëpp la ko defal doon na loo xamante ne ñun ñëpp bëgg nañ ko waaye comme moom la suñ borom <clears throat> jagleel mu mën koo def vraiment dañ ko ci sant mënoon na koo def ci poosam mbaa mu yemale ko Mbàkke gii waaye defu ko da koo yaatal ba génne ko si àll bi kon Seydina Aliou yal na la yàlla fay. yombul ñoo ko ci sant bu baax a baax di ko remercier. di wax ne sagal na nu ñun at yëpp bàyyiwuñu kenn te bu soobee yàlla nii mu ko defee ñoo koy ñaanal yàlla année bu jot mu mën lu ko ëpp euh, te it ñun ñi nga xam ne ñun la ko jox wan nañu wan nañu yoon boo xam ne nii tey wane na ne ñun li ñu li mu def ñun war nañu ko mën a def waaye nag euh, ñoo ñoo ngi jaar ci ay tànkam fas yéene rek euh, nii mu ñu ko joxee ñun it buñ demee ci askan wi ñu joxe leen ko noonu